tey jeudi 9 septembre 2021 ñu ñëwaat ak yéen eh, ci xibaaru revue de comme d'habitude rek ma ci ànd ak bokkandoor ziar naa la soxna Amina maa lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp ni nga ko waxee rek tey la jeudi 9 septembre Amina ñu ñëw ak yéen si yéen sama anniversaire nag 10 jours moo si des 10 jours moo ci des le 19 septembre incha allah incha allah rabbi sama bésu mariage ma war a am un mariage waaw kon dañ koy def benn anniversaire rek. noonu la ñu jënd gâteau yi séddale. jalone ba tax na nag comme ni ngeen ko gisee rek suñu làmb lañ koy daal di euh, ubbee ci xët yu njëkk yi mu daal di ñëw ak ñun nag le 19 ak le 25 décembre incha allah ñaari combat yu mag yi ci war a am. Balla Gaye wàccee tasante ak Boy Niang 2 Ama Baldé wàccee tasante ak euh, Modou Lo ñu ne nag. Pikine dina neex dina yëngu. dina neex dina yëngu Pikine au front au mois de décembre noonu la ko journal suñu lamb xëy rek fasale Amina Ndiaye ñaari bëri ku si nekk ko ay ay séram wala mu gis nga ko boo ñaar li mu sol fii Amina Ndiaye cosaan la moom la Ama Baldé wekkoo nii mu mel ne nag tey ñaari bëri ku si nekk Amina buy bëri rek Pikine day yëngu waaye buy bëri di nga gis ambiance di gis cosaan di nga gis li nga xamante ni rek moom mooy maanaam lamb dëgg dëgg dëgg dëgg lamb moo tax journal bi ñëwaat si ñaari xale yi ñaari ndaw yi ñaari espoir yi wala wala ñi rek ñaari ñi nga xamante ni tey ñooy yaakaar Pikine kii war a war a laale le 19 décembre incha allahu rabi kii war a laale le décembre incha allahu mu nekk nag yaakaar naa weer boo xamante ni moom mën nañu weeru Pikine la te ñaari doom Pikine yi ci nekk daa loo promettre sa bopp kii nii di Ama Baldé moom euh, couronne bi la daal di promettre ngir nekk roi des arènes waaye Boy Niang dafa bëgg kut ko kut tasante ak Tapha ndam mën a jàmmaarloog Boy Niang mën a jàmmaarloog euh, kii di Balla Gaye loolu mooy objectif ki nga xamante moo di Boy Niang loolu bëgg-bëgg mu Amina Ndiaye yaakaar naa nag fi mu nii moom li si des bëreetul mois de décembre moom su ma ñaar xaw ñetti weer si des ba na ku si nekk fi mu nii lépp loo am yaakaar ne boo ko defee di am ndam rek yaa ngi ci Ama Baldé jamono jii nii ma nga France di yokku cere di dooli ñax foo ko toogaan yaqin wala gëm-gëm bi mu am ne bu dina nekk roi des arènes bu ko amoon ne bu ko leeroon ne bu dee dem àjjana kon mu faatu léegi-léegi lii kon kooku noonu amaana am na ngëm-ngëm am na benn esprit philosophique boo xamante ni tey moom moom la dugal ci boppam que ne ala kulli aale moom day jot nañ desani ak yéen euh, kii nii di Lac de Guiers 2 nag gis nañ ni moom moo nekk nouvelle euh, cible des jeunes espoirs koo wax danaan la Lac de Guiers 2 laa soxla te lan la ciy teg dinaa ko dóor dinaa ko daan dinaa ko fekk ji. ko dóor dinaa ko daan bëri na koy waaye nag duma Lac de de Amina Ndiaye yombul parce que c' est boo xamante te c' est un lutteur aguerri boo xamante moom manœuvre ko wala nga malmené yombul waaye nag jamono ji kii di wala Émile François Gomis moom seen bëgg-bëgg yëpp mooy rek jàmmaloo ak Lac de defaral ko bagage defaral ko affaire loolu seen bëgg-bëgg Lac de moo tax cible jeune espoir yi. comme ni ko waxee rek euh, dañ naan VIP boo xar xol bi couronne roi des arènes nga cay fekk mais jamono yi gis nañ ni espoir boo gis rek boo xalee xol bi bëri ak Lac de Guiers nga ciy fekk nu mu noonu buuka. nu mu noonu yëpp mooy maanaam tey dañ jàpp ne Lac de Guiers 2 euh, jaarukaay la awukaay la te du jaarukaay du awukaay amaana nag tey am na mbër yu bëri yoo xamante ni rek Lac tey moo leen tenir en échec wala tey moo dem jeté fleur Lac 2 nag waaye nekk na mbër boo xamante ni Amina Dia ni ma ko waxee rek maanaam mbër la boo xamante ni day serein ci biir làmb maanaam donte bu ñëwee euh, nekkul sax mhm. maanaam day dal te loolu yaakaar na ne arme la avantage la si côté ba tax na daal fi toll nii mbër yu bëri nag bëgg nañu laale ak moom bëgg nañu bëri moom ba si rëg-rëg sax mbër yu bëri yoo xamante ni tey xam naa ne bëgg nañu bëri ak ki nga xamante ni tey moo di Lac 2 ba tey euh, comme ni nga ko gisee rek Garga 2 daal dinañ koy fësal ci combat bi war a am le 11 décembre incha allah digganteem ak Mama Lamine nee nañu nag Mama Lamine jamono ji day viser am beneen sixième victoire d'affilée sixième victoire d'affilée le tarkinda loolu la bëgg rek moo tax jamono ji ginnaaw bi seen combat avorté woon moom mu déclaré woon fi mu toll nii nag dafa war a waajal rek ki muy jàmmaar lool mooy le ki nga xamante ni rek moo di Garga de nekk nag xale champion boo xamante ni te Amina Ndiaye ba tey sax dama jàpp ne ñu bëri dañoo réere ay ci ci wàllu bëre. maanaam. maanaam dafa nekk xale a bëri mais ñu koy waxee des fois rek am na mbir yoo xamante ne Amina Ndiaye maanaam amuñu caac amuñu yenn benn bayre bi maanaam amuñu benn feeling bi te amaana tey ay mbër lañ yoo tey ils sont pétris de talent waaye en daal li leer ba leer mooy que ñoom ñaar seen combat du yomb. maanaam mbër yi nga xamante ne dañoo mën noppiwaale te amuñu fës-fës bi ñu war a am ci làmb. waaw amuñu fës-fës bi ñu am ci làmb am na champion ñoo xamante ne am na ay champion lañ ay ndaanaan lañ mais maanaam oh. a bëre boo bëree a bëre. loolooy naan euh, na nag kii cinq victoire la am dajale euh, six défaite ñu daal ne nag euh, perdre de visam Kumba. waaw écurie boobu noonu perdre nañ seen devise jëf soog a nekk mu nekk écurie boo xamante ni te orton fa la nekk pour bu daaru ak yeneen xale yi ndaw yoo xamante ni ñoo fa dara dara dara dara boo tax na daal euh, journal bi daal jàpp na seen devise moom dañ ko perdre jamono ji euh, kii nii di Modou Fall nekk euh, seen président daal nañ koy fësal ci biir journal bi waaw daal nañ ko si fësal moo tax na mu jàpp rek maanaam tey dañ nekk si si si si si si ngir maanaam gën a jóge mën a jóge foofu noonu ñu nekk. mën faa jógee absence depuis sa victoire kii nii di Ndiakhoum euh, Ndiakhoum nag daal di nay def sortie di euh, défier Ahmed Deme. Ahmed Deme la bëgg a bëreel Valdo ni ko ni ñu ko doon woowee Omar Dandoun ñaar ñooñu daal la bëgg a moom ñu mi nga xamante ni tey Alioune Diop la mujjee daan fële sa stadium Iba Mar Diop ñaar ñooñu nag la ciblé daal ne ñoom la bëgg a bëreel comme que nag ñaar ñooñu dañ am dañ am combat. xëy na ku ci génn ku si daan wala ku si daanu amaana mën nga ko jël ngeen bëri ñaar foofu la ñuy jaare daal di dugg ci journalu les arènes nag ba tey ci xëttam gu njëkk mu daal di euh, fësal euh, acte bi nga xamante ni euh, Bombardier def na ko am adversaire di bëre ak moom way juróom bu góor génn àdduna nga jàpp ni lii moo ëpp sport lii moo ëpp doole sport nga bàyyi lépp loo jàppoon daal di dem jàll ji ko ba tey journal bi daal dina ci ñëwaat nag am na ñoo xamante ni joxe nañ ci euh, benn explication bu contraire ak li nga xamante ni moom moo di acte mais am na ñoo xamante ni dañ ko apprécier. waaw mooy li journal bind rek parce que journal bi dafa bind ne euh, maanaam tey s'explique tel mystiquement la présence de B52 chez Balla Gaye maanaam day day laaj ba xam ndax est mën nañu ko expliquer mystiquement mhm. waaye loolu yaakaaruma ne mystique am na fa place Amina Ndiaye parce que tey dee moo Mhm. parce que nee na yàlla dafa sàkk dee avant moo sàkk maanaam juddu kon dee moo jiitu lépp kon loolu bu amee rek dañuy jël lépp tege ko de côté xëy na loolu tax bom Bombardier dox fa càng tànku jàmm nekk tànk koo xamante ni c'est un très grand sportif ñu si mhm. pour pour ñu ko xam mu nekk koo xamante ni vraiment ku yaatu la ku oyof ku simple moom Bombardier dox tànki jàmm jël yiteem dagg yiteem yëpp dem ba kër Balla Gaye jaale na ni acte bi mu def nii da koo def sans arrière pensée. da koo def sans arrière pensée da koo def maanaam si si xolu rek maanaam tey njuliteem xolu ki nga xamante mooy yërmaane waaye xolu sénégalais looloo tax mu def ko loolu la Balla Diouf jàpp waaye jàpp na daal sportif la moo tax mu def li mu def nii. Boy Kayré tamit jàpp na ni geste boo xamante ni c'est à la geste la boo xamante ni li ñuy faral di ko gis bëriwul li ñuy faral di ko gis bëriwul waaye nag sport la avant tout parce que lamb sport la rek nekk boobu loo xamante ni tey donte nag gagne-pain la si ñi nga xamante ni tey moom lañ jël def ko métier waaye nag teewul ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi tey kenn du daan nit ba yóbbu ko sa euh, daal. Franc moom jàpp na ni li Bombardier def exemple la boo xamante ne ñoom ñaar ñii muy Balla Gaye muy Bombardier li li Double Less def si làmb defuñu ko ci làmb te yàlla moom la ko tey kon yaakaar naa ne loolu yëpp maanaam tey ay ay de vie wala leçon de morale yoo xamante ni rek di nga ko oyofal. waaye dafa mel ni contradiction ba la Diagne Ndong daal di wax nee na à sa place dafa waroon a euh, consulter stafam ba noppi. waaw Diagne Ndong moom nag jàpp na ne maanaam Bombardier dafa waroon consulter stafam wax ak tànn stafam ba pare dem di kër Balla fa jaala ji waaye yaakaar naa ne ak circonstances yi ni mu demoon ak maanaam dee di nekk loo xamante ne mbetteel lay nekk moom. Mhm. su ma juumal moom amee naa ne euh, ni mu ko defee rek ni ko Sénégal yëpp apprécier la rek maanaam mhm. dem jaala ji moom yàqul dara. dem jaale ji loo xamante ni bu naturelul danga koy daal di bàyyi boo demee ba ci consulter ay staff ñi naan la demal ñi naan la toogal rek dafa fekk yow la ngay woote naturelatul ci yow te ku gis Bombardier xam ni xol moo ko yëkkate ku ko gis xam ni ko dal na ni vraiment ku ñi war nañ mën a bàyyi xel ci côté boobu noonu mooy ko ne maanaam maanaam lamb moom sport la rek mais lamb warul dénaturaliser nit maanaam warul changer nit warul tax nga changer jikko wala nga mel ñi parce que am na nag mbëri nag maanaam dafa bëri ñoo xamante ils sont sceptiques am na mbir yoo xamante ne maanaam boo leen xoolee sax ñu ngi ñu ngi gëstu ba xam ndax li nga xool leen te amaana ay nit kese leen fii moom mhm. nit mënul am lu ko yàlla mayul kon loolu yëpp yaakaar naa maanaam lu jot a bàyyi xel la dañu ñàkk a wóolu a wóolu journaliste yi teew seen kër loolu gis nañ ko fi bataay yi mhm. gis nañ ni ma koy maye maanaam kuy jàpp ay sa ndam ci nit nga koy amee wala ci journaliste wala ci kee maanaam tey gëmatoo sa bopp mhm. maanaam mbër bi gëm boppam moom day jàpp maanaam li koy may ndam maanaam moo mooy liggéey yàlla fekk si ko si waaye nekkul loo xamante ne da nga jàpp eh, ma jaayak ak dañ ma lii dañ ma laa loolu yaakaar naa ne maanaam amul njëriñ li ko journalu Les Arènes daal di tëjee nag mooy euh, couronne bi nga xamante ni dafa daw ñett ñi depuis lors depuis leur début Gris Bordeaux Tapha Tine ak Lac de Guiers ñu nekk ay VIP sans titre am nañu turu VIP waaye lenn li nga xamante ni moom mooy firndeel dëgg-dëgg VIP ba nag moom la ñu manqué. moom la ñu manqué waaye moo tax na journal bi fësal leen rek te andi Lac de Tapha ba si Gris Bordeaux nekk na ñoo xamante ni tey kenn mënu leen génne ci VIP waaye ba tey amuñu chance euh, jot si li nga xamante ni tey moo di couronne roi des arènes bi waaye nag amaana li ñu naan xëcc bu dagul di ko comme ñu ngi ci course bi ba tey euh, amaana buñ buñ gënee góorgóorlu rek yàlla na def li gën ci ñoom yàlla mën na def li gën ci ñoom incha allah ba tax na nag ku nuyoo ku nekk di nga tàggoo tey lu tàmbali lu nekk rek am na fin euh, revue de presse bi fii la fin daal di yam rek di tàggatoo képp ku ko doon suivre saa su nekk di tàggatoo ak yow Boucandoo waaw di bëgg ñëpp bi jaajëfal ñëpp rawatina nag tey Sénégal si diaspora bi Serigne Diouf bëggee di ko ziar bu baax a baax a baax a baax ñoom Baye Saliou ko depuis Italie gars yëpp nga xamante ni tey foofu Lutte TV la ñuy wéetaliku ne si diaspora bi du dund làmb rawatina nag tey ñu nekk ci biir réew mi vraiment ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di ñaanaat nag jàmm si réew mi parce que jàmm euh, jàmm si la ak préparé anniversaire bi waaw takku jóg rek waaw ndax ku yéex ñàkk siobati kenkaayeri en ligne bu mag bi ñëwati